mbokk yi dama ko daan dégg rek mais mosuma ko gëm dama daan dégg ñu naan Amadou Ba da daan luy ay nit mais tey laa ciy door sama bët gis ngeen dèjà preuve baa nii car baa ngi nii gis ngeen maire yi ngi nii di wàcc da ñëw ñu proposé la ne la cinq lañu la jox ak t-shirt nga ànd xamante ne seen meeting di tas wala seen campagne di tas gis ngeen dèjà carré ay xale rek a ci nekk lii nag diwaanu Tëngéej la xewee fi ñuy wax quartier Sokabek gis ngeen preuve baa ngi nii car bi sànq la fii la ñuy préparé ngir jël li nga xamante ne Kova ñu dem léegi nag après yow yow mi nga xamante ne mosoo ko gis wala boo gisee vidéo daan naa ñu ni programme la dèjà koñ baa ngi nii ñuy dëkk ci koñ bi ñëpp dèjà duñ génn gisoo ñi ñëpp dëkk ak dëkk la jugee pour mën a ñëw accompagner ko léegi damay laaj ndax réew ndax dina yor réew réew a mën a ñoo ko yor dëgg ndax lu dul dëgg du yàgg dañu naan ëllëg du añ du reer waaye lu mat a la ndox image yu mel nii foog ñu koy wane ku ci nekk di ci mën a teg sa bët ku ci nekk di ci mën a xam li nga xamante ne moom la euh, société bi toll que nit ñi dañ leen di wax dëgg dëgg boobu la nag mooy njëkk te mooy mujj ñi ñëpp ki seen gis kenn dëkku fi buñ paree si ay kaar yéen ñu yéegal gisoo benn kaar yi nii beneen kaar yi yëpp ay oto la léegi pase bu paree mën na préparé wu ngir mën a amal seen campagne amul kenn ci dëkk si koñ